Click Dakar mooy nuyoo te nuyu naa leen ni ñuy nuyoo buur waaw daw leen gaaw ngeen daal di aimer abonné like ca page Click Dakar 221 bu ko defee émission yi di gën di ñëw waaye la nga xam ni moo lay information di gën di fiable fii ci Click Dakar 221 waaw coow li nag dara waralu ko lu dul Choco soko no stress moo nekk fële ca TikTok ba di saaga ak di wax lu bat bu bon bu ne ki nga xam ne moo di oustaz Modou Fall bu TFM eh, di ànd ak ki nga xam moo di Pape Cheikh ñuy bokk seen plateau boobu moom Choco ko yàq lu ko TikTok ba ndax nee na ki nga xam ni moo di Pape Cheikh ba mu demee fële a Paris maanaam ca Viviane ba mu amaloon pari ànd ceek Pawlish Mbaye ak ki nga xam moo di Ouzin Keita dafa yëkkati enveloppe boo xam ne bu doon a doon bu ñuy wax sax ni plus de deux cent euros moo ca nekk mu daal koy jox Pape Cheikh ngir mu jébbal ko oustaz Modou Fall ci daaraam boobu nga xam ni moom lay tabax moom Soko nag nee na loolu moo ko metti le fait que oustaz Modou Fall taxaw ci télé beeg fépp fu mu mënti doon daan li nga xam ne moo di musique baaxul waaye xaalisu musique dafa araam baaxul tey moom moo tourné waat di jël enveloppe bu Viviane mi nga xam ne xaas ba ca soirée ba mu defee woon Paris ki la jógee kon oustaz oustaz Modou Fall y'a problème parce que loolu la Choco wax ndax nee na bu demee ba ŋàññ li nga xam ne moo di xaalisu musicien xaalisu artiste kon waroon na fee bàyyi bu Viviane ndax xaas boobu mu ko jox na xam ni ca la mu récolté ca Paris la France moom la ko jox kon Choco daal la muy wax ca TikTok ba doy na waar metti na waaye tamit li muy wax dépassé na ba tax na weñ gu ci sarax ndiku rek